Euh, Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay say awa. alors ngay njiitu conseil euh, diffuseur ak éditeur u presse u Sénégal tey nag ñuy màggal euh, bés bi ñu jagleel liberté de la presse ndax ak ak yëleefu presse bi ñoo ngi koy sàmm fii ci Sénégal. dëgg-dëgg Sénégal am na constitution bu nga xam ne mun nañ wax ne constitution bu révolutionnaire la parce que dafa consacrer les libertés fondamentales. les libertés fondamentales yi jëkk mooy la liberté de presse ak la liberté d'expression vraiment loolu ñu ngi koy rafetlu euh, même bu fekkee ne dañuy déplorer le fait euh, que constitution bi dañ ko naxasal dañ ko naxasal maanaam ci euh, nguuru président Macky mu musuñu gis violation la liberté de presse et la liberté d'expression euh, durant toutes les euh, soixante euh, comme année yi jëkk yi euh, tëj nañ fi ay journalistes violenté nañ fi ay journalistes coupé nañu signal ay télévision yooyu vraiment ci république que warul am parce que dañu war a doxal yoon bu fekkee ne euh, journaliste dafa liggéeyam comme nu mu waree a defee euh, am na euh, yoon am na tribunal bu nga xam ne mun na juger jéye bu nga xam ne journaliste def na ko bu fekkee ne télévision am na ay manquement wala rajo am na ay manquement wala journal am na ay manquement loolu yëpp aussi dañ ko war doxal dans le cadre de la loi mais non pas que un ministre de la République am sañ-sañ couper signal donc télévision euh, donc loolu euh, vraiment dañ koy ñaawlu loolu nag lu ko waral mooy état de droit respecté wuñu ko Sénégal buñ ko respecté woon Sénégal euh, kon manquement yooyu du am rax ci dolli na suñu code de la presse bi nga xam ne moom la président Macky Sall donc bind daal di koy transformer complètement par rapport ak li conférence nationale bu a euh, waxoon comme comme projet de code de la presse euh, loolu code de la presse boobu il faut ñu raxas ko parce que la seule préoccupation de Macky Sall à l'époque c'était de réprimer la liberté de la presse et de la liberté d'expression donc code boobu am na ay sànn yu bari yi nga xam ne dañ ko war dañ ko war a bindaat pour que les sanctions pénales ak les sanctions financières yu ci nekk mhm. dégg nga mu bañ a nekk un un frein pour la liberté d'expression non non c'était du code de la presse rek moo répressif mhm. mais également le code pénal et le code de procédure pénale mhm. donc bu ñu buggee euh, Sénégal ñëpp di mën wax seen xalaat dans le cadre de la loi euh, ñetti textes yooyu il faut ñu xoolaat leen alors li jëm ci assises médias yi nag lan la jot indi ba fii waaw assises médias yi euh, situation bi actuellement au niveau de la presse dafa tar moo tax acteurs médias yëpp ak société civile ak euh, institution yi ñu am Sénégal yëpp ak les les universités ak les écoles de formation des journalistes euh, des journalistes ñu daal di tase ñu ne ah pour réew mi toll di pour presse bi toll bu ñu deful ndànk euh, dinay naxasal presse bi ba presse bi dootul mun a jouer le rôle républicain bu mu doon jouer dans le cadre des alternances politiques dans le cadre de l'éveil de la conscience donc citoyenne dans le cadre de son role dans le développement économique et social dans le cadre de la lutte contre les pandémies donc ñu ne am nañu ay euh, ay mesures yi nga xam ne moom la ñuy proposer euh, suñu gouvernement état du Sénégal pour que mu saafara ko parce que bu ko saafarawul euh, euh, presse bi du mun a du mun a développé wu ñu mun a am presse bu nga xam ne dafa libre et indépendante parce que presse balaa muy libre et indépendante il faut que mu viable donc économiquement mu bañ a nekk sous le contrôle des lobbies tey boo xoolee Euh, entreprise de presse yu bare ay lobby ñoo ko contrôler muy lobby politique boo xam ne moo ci gën a tës mais y également le lobby le lobby économique et euh, le lobby religieux donc euh, bu demee ba la majorité des entreprises de presse ñu ko yor ay lobby lañu euh, lobby yooyu du seen objectif du informer les citoyens seen seen objectif mooy ñoom intérêt yi nga xam ne moom la ñuy défendre d'un point de vue politique d'un point de vue économique d'un point de vue religieux pour intérêt yooyu euh, nekk au devant de la scène et non pas les intérêts du Sénégal et du citoyen sénégalais donc ñu ne euh, euh, il faut que ñu am ay réformes yu takku yu ñu def en matière de législation cadre juridique et fiscal bi pour que ñu mun a dimbali l'émergence d'une presse libre et indépendante donc réforme yooyu benn bi mooy du point de vue de la liberté d'expression euh, la liberté de presse ñu adopté une loi sur la publicité loi sur la publicité buñ ko euh, buñ ko adopté euh, ñun médias yi nga xam ne publicité rek moo ñuy dundal ñu mun a euh, liggéey am ay ressources et non pas un lobby bu nga xam ne moom moo ñuy financé mhm. euh, ñaareel bi ñu ne il faut que mu am euh, une réponse de la fiscalité parce que fiscalité euh, mënuñu appliquer la même fiscalité à une entreprise de presse ou bien à une société commerciale dans le secteur du commerce ou bien dans dans le secteur industriel donc ñu ne il faut mu am benn fiscalité bu nga xam ne Euh, dina méngoo ak euh, secteur névralgique bi nga xam ne mooy les médias comme ni ñu koy faral di def dans le secteur euh, par exemple du logement social dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de l'élevage euh, bépp euh, secteur bu nga xam ne dafa am solo réew mi mais ñu ne en attendant que mu am doole bu mu war a am dégg nga il faut que ñu defal ko ay facilité donc loolu c'est important il faut que euh, suñu nouvel état bi suñu nouveau régime bi comprendre loolu. mu mel ni bëri na ay euh, jafe-jafe yoo xamante ne entreprise de presse yooyu la ñoo ngi koy jànkonteel. waaw xam nga léegi yaa ngi dégg ci entreprise de presse yu gën a rëy fii ci Sénégal ñu ne dañu am ay arriérés de salaire dégg nga mais en réalité ñoo ñooñu ñoo fay mais entreprise de presse yëpp yu nga xam ne. du ay lobby ñoo leen di financer mais dañu am ay problème euh, néew ma salaire sax mais ay problème sax de cotisation sociale ou bien de couverture maladie donc mënuloo euh, def journalistes yi ak techniciens des médias pour ñu nekk ay baadoolo baadoolo bu xiifee luñ ko jox mu lekk donc loolu moo indi corruption ci biir euh, Sénégal et loolu pour mu dañ il faut mu am une entreprise qui soit viable économiquement ñun Euh, ay intellectuels la ñu ñu ngi liggéey dans le secteur de la presse mais te euh, président la république moom intellectuel la donc lu tax moom mu war a tedd ñun journaliste du ñu tedd hein euh, donc lu tax avocat tedd ñun ñun journaliste du ñu tedd ñun ñii suñu bopp ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a jàng sax le président la république mais ñu ngi ci ndóol donc loolu il faut que ñu jox la dignité à chaque sénégalais quel que soit le secteur bu muy liggéey pour que mu mu a euh, garder sa dignité dégg nga et remplir un rôle dans le cadre du Sénégal euh, bu méngoo ak intérêt Sénégal et non pas que mu jaayu à un lobby ou bien à des puissances étrangères donc euh, mm-hmm. réforme yooyu yëpp dégg moom la ñu bëgg Euh, dañ ko tënk ci benn document donc conclusion yi dinañ ko jox incha allah euh, au nouveau président la République. Euh, fi mu nii ana lan ngeen di xaar ci régime bu bees gi. lu ñuy xaar ci régime bu bees gi yomb na mooy li sénégalais yépp di xaar ci régime bu bees maanaam le respect de l'état de droit réew bu nga xam ne kenn du respecter la loi. lu waay neex def wala bu ma féetee ci nguur gi dégg nga mun naa def lu ma neex te dara du ma ci fekk loolu dafa war a dañ Sénégal dans tous les domaines bugguñu président de la république bu nga xam ne mooy yàlla sénégalais yi constitution waxul loolu dañ ko dénk le pouvoir politique dañ ko dénk état bi avec euh, euh tous les pouvoirs mais néewuñu ne mooy yàlla mooy yonent sénégalais yi donc lépp moom ci boppam action am muy presse bi muy justice bi muy sénégalais yi dañ ko war a mën a xool bu fekkee ne dañ ko war a critiquer ñu critiquer ko te kenn duñu dugal kaso muy benn ñaareel bi euh, mbirum presse suñu gouvernant yi suñu homme politique yi position bu ñuy am ci presse bi bu ñu nekkee ci opposition bi ñu tàccu presse bu ñu eggee ci pouvoir bi ñuy opprimer presse dama bëgg wax ne euh, presse nekkulu fi président la république presse nekkulu fi gouvernement Sénégal presse bi citoyen sénégalais bi la ci nekkal ak état bi Sénégal pour défendre suñu intérêt suñu intérêt nationaux ak les intérêts africains mais nekkuluñu fii pour nekk ay nunguru parti au pouvoir wala gouvernement donc il faut que nag euh, suñu gouvernant yi suñu régime bu bees bi mu mun a xalaat ne yan condition laa mun a def pour que presse bi mu reste une presse républicaine pour njëriñu Sénégal ak citoyen Sénégal et non pas une presse bu nga xam ne dama bëgg saa yi ma tàccoo rek dégg ñu wane ma fépp donc presse boobu il faut ñu mettre en place des condition comme ni ma la ko wax ay sànq ay conditions du point de vue de la fiscalité du point de vue de la loi sur la publicité du point de vue de la loi sur l'accès à l'information du point de vue du financement des médias pour que ñu am ay entreprises de presse qui soient viables économiquement ñu mun a am ay journalistes yu xarañ ay techniciens des médias yu xarañ yi nga xam ne dinañ mun a am njëriñ donc pour le Sénégal donc loolu euh, laa amoon comme xalaat. Mamadou Ibra Kane jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu conseil euh, diffuseur ak éditeur yi nga xam te ne ñoo nekk ci presse sénégalaise bi di CDEPS ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay fay awa te maa ngi gërëm seen groupe de presse bi. parce que yéen a ngi def liggéey bu. am solo liggéey bu takku solo liggéey bu takku solo